waaw mu daal di may woolu ni ma waxtu takkusaan sëñ bi sëñ bi sëñ bi woolu ma waxtu takkusaan ni ma ni ma sëñ Abdou de dama bëgg nga bàyyi yitte yëpp te ñëw toog fii wétti li ma bañ a tee dem fenn mm. ndax ndax tey jii de eh, damay def fu ma tàmbalee jàng ba taxaw xama yemoon duma ko xam te loolu mosuma dal eh. waaw ma bëggoon nag nga dagg yitte yëpp te ñëw loolu loolu eh, ngoonu ngoonu alxames ci ngoon alxames ci ngoon mun waaye gone ya nga yóbbu woon démb ci àllarba ji dem ba xam nañu tooge door a ñëw baax na ci mu ne ma saagal mu daal di wax saagal jaxate mu jàppale ma ndab yooyu ndab yi daam nga yooyu ni ma yóbbu ko jox leen ko su nag neewoon nga da leen jox ay lal waaye lu yàgg bu fa jekk bu jékki-jékki di joxee lal laajoo ko ba xam ko wax ni ay lal de am na fi bu ko bu ko soxlaa mën nañ ko ko yëpp waaye ndax nit dee su ko jox ay gone ba noppi di ko woon aw yoreen ndax xamoo ba xam ñam yoonam joxoon na leen ay lalam déet wala bu leen joxee ay lal itam jox na leen lal yu mel ni suñu yasiram déet waaw bi ma ko bi ma ñëwee nag jox ko ndab yi mu ne ma añ bii de na mujj tey bu ko fi indeeti waaye añ ba nag mel na ne baax na fa boobu waaw ndax ndax booba xaw ma am nañ am na ñi nga xam mu tuuru te ma <laughs> waaw ko ma waaye nee na ma añ bi lu yàgg yàgg bu ko fi indeeti waaye ay lal nag jaaxalu ma fu may amee ay lal daal jaaxalu ma ko waxee loolu man fu amee ay lal jaaxalu ma ma daal di ree xam ni lii la sëñ bi bëggoon bi ma ñëwee nag ma ni ma yow de leen doon nekk ci reer daal di dem ngeen reer ma daal di dem di reer ma yàgg ma ni ah, naa ñëw wax sama yitte ba nag mu ne ma mu ne ma ana gis nga gone yi ma ni ko waaw mu ne ma moom de ma daal la koy netti lam wax ci ci ñàkk bëgg ma bañ faa indeeti añ bi ak bañ ma bañ faa indeeti euh, bañ koy jox lal yi mm-hmm. mu daal di mu daal di ree daal di sant yàlla waaw sëñ Saliou daal di ree daal di sant yàlla daal di kon da noonu rek la baaxee suñu dox mbaa tey jii moom mbaa jàpp na dellu sa kër ma ne ko jàpp moom na dellu kër ga rek waaw waaw tey de daal ni daal ni da mm-hmm. nga xam ne tey moom nelaw amut lal bi lampe bi jërul fay waaw njëgloo yi loolu la. waaw la te àllarba jooju. Ah, bi ñu bi ñu joxee gone yi si ñoom yebal na ma ni ma naa ànd ak ma tey jii kat am suñu war moomee kat daa bëgg nga ànd ak góor yi mu yóbbu la eh, boo demee nga ngeen sant ngeen tegal ko xeeru jumaa ja jàkka ja ya muy tabax. te xam te ngeen xamal ko ni ko euh, barab ba tudde naa ko bustaanul arifin mm. ndax moom la sëñ Tuubaa mujj tudde ci kër mm. ak faydu akaabiri saalihin mm. ñaari tur yooyu la sëñ Tuubaa mujj joxe boo demee nag bustaanul arifin moom def naa ko alal ah, waaw ajjuma ji moom mu dem <laughs> mooy moom la wut jox bu ngeen demee ngeen teg xel te tudde ko lool tudde ko barab ba te it jàkka ji itam mën nga ko tudde sax xam sax Hamza waaw masjid Hamza da nga ànd ak am sama ngeen ngeen suñu am sa moom ngeen teg ngeen teg xeer te te ñaanal ko fa hmm. dañu talaa ànd ak suñu am satu ñëw teg xeer daal di koy ñaanal ci barab mu ne nag nañ ko tudde masjidu Hamza yaakaar naa ne am na ko fa ca makk makkatam ko am madina waaw nee nañ moom la sëñ Tuubaa mujj a joxe hmm. bi nga xamee ni ñëw naa ba toog nag ba bañ ba fanaan ci moom ci guddi gi bi mu jekkee ba une heure ci guddi. Hmm. dama laaj ku ñuy wax gone gu ñu wax Lamine Neng ku nekk ku bokkoon ci gone yi. Lamine Neng waaw tam bokkoon ci gone yi daara ji. Hmm. ma ne ma anam xanaa dafay ne ko ma ne gis gis naa ko gis ma ne ma ma ne ko daa demoon seen dëkk mu ne mbaadu mbaadu Gàmbi ma ne ko waaw. Hmm, daal di daal di wonk wonk ba kii. te la mu mujj laaj ba bokk ci gone yi. gannaaw boo xam ne bi ah, ah, ah. ajjuma gis guddi gi guddi gi noppaloo ci une heure la ma laaj gone gone gone gone googu ma ni ko dafa dafa dem seen dëkk te te gam bi mu ni hmm, hmm, daal di tiisoo lool dem googa mu dem ba ñu jekkee ba quatre heures mu ni mu ni ma dama wool ma Taïba ma ne ko téemaa woo Saliou Diakhaté Taïba léegi dafa jógee ni daa daa gëmmentu mu ni waaw koy wool Saliou Diakhaté waaw hmm. woo Saliou mu ni ma mu ni mu ni sa mu yebal Saliou mu indi wëlis bi def yere yi tala la sonaas sol sol mbubbum sol ca la sonaas ay yére foofu daal di solaat meneen mbubb daal ni ma jox ma kurus gi man laqati kurus gi ci ci lal bi jox ko mu ne ma jox ma lampe ma jox ko lamp bi euh, mu dal nit muy këtëri la mu dal ni mu dal Saliou ni ko tegal ngeganaay li sey tegal ko ngeganaay li mu dal di suuna nii mu dal di suuna nii ci ci ci ci lal bi hmm. waaw di wérdi di wérdi bañ noddu moo di julli da ni mu ngi yëkkati tablier bi di tegaat di yëkkati di tegaat. donc mm. moom seulement leeral la ni nii waxaatu waxaatu la moom. ndeke booba la dem. maanaam booba la dem booba la dem waaw. voilà noonu nag gannaaw bu noppi laa laa jëkk génn dem Casamance. Mm-hmm. waaw la ko jiitu it man kii Ndakaaru fii rek laa daan yem mosuma dem dem Tamba sax mosuma dem Casamance si laa dem. moo ko wëlbati ko ma jaar jàmm di nemmi ku la ñu ñag moomee fekk waajuram ngente xew fa mu mm-hmm. ni ma mu ni ma guddi ga gañ ne sëñ bis ba ne sëñ na guddi ga ko jëkk ca une la dikk fëgg waa kër gi yee yee waa kër gi yëpp ni suñu saa yu daa nekk ca néeg ba ñemewu fa mm-hmm. ma daal di koy jiital ko bi yar eh, ba mu ñëwee ba mu ñëwee ba ci ba dellu si néeg yi mu ni mu ma ni ko yow nga dëkk ak sëñ Saliou di ragal sëñ Saliou dal ci dóor ko ba mu ni ba ñëwee ba ci néeg ma ni ko ana sëñ Saliou mi ngay wax mu ne ma fii la toogoon ci lal bi ma ne ko fii la toogoon ci lal ndeko une heure boobu ma ne ko ma daal di yéemu ci sëñ Tuubaa daal ni daal ni leer na une heure yooyu mooy li ko sëñ